ñuy rey ay xale di faagaagal ay jigéen di yàq ay alal loolu ci dëkku mel ni Sénégal ak ñi Sénégal amee teranga ak nitu sénégalais ñi mu xamee valeur téye ko noonu jàppe ko noonu di ko doxee muy am sëriñ bi ne mu ngi koy ñaawlu loolu kon ñu ñaax njaboot gépp waaye di ñaaxit état bi ñu war a mën a taxaw nag pour gën a mën a sàmm bakkan yooyu ak alal yooyu ba loolu mën a dakk feebar bi nga xam ni lëmbee na àdduna bi tey di coronavirus bi nga xam ne am na ci siin ñu ngi ñaan suñu borom yal na ko yàlla jeexal du wax rek ne yal na ko fa yàlla yamale pour mu mën a yem ci askan woowu déedéet waaye na ko yàlla jeexal kon ñu ngi ñaaxaat ñëpp delluwaat ci yàlla. waaye ñii ñëw ñii ñëw Ndiassane maa ngi woo ñëpp ku ñëw dangay ngay ñëw ca suba sa incha allahu rabbi maanaam ci suba suba teel gi. ñëw fekkee njàngum alquran mi lii laa bëggoon a samp ñëw fekkee cérémonie officielle bi kilifa yi toog ñu waxtaan ci xam-xam ñëw fekke guddi gi tàggat yonent bi yëpp ñëw ñuy tàgg yoon ci yàlla Muhammad bâche bu rëy lay doon amul fay li ngi war a tombeeg le 7 mars xalifa bi mu tombeel muy Cheikh Al Bekkaay ibnu Cheikh Al Bekkaay mooy septième xalifa bu boroom Ndiassane loolu nag sant yàlla la looloo tax nag ñu tuddee ko retour à la source at mu jot damay tànn ñaari mag ñu rendre leen ci hommage ren ñaari mag yi ma tànn mooy kenn ki mooy caatu borom Ndiassane di cheikh bu Mouhamad Kunta Baye bu ki ci des mooy Serigne Saliou Mbacké Khadimou Rassoul